jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu yéen sunu mbokk euh, auditeurs yi ak euh, auditrices yi mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ma Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu dellu am mbégte dalal honorable député Ayib dafe Ayib Daffé nekk membre Pastef Euh, moom nag euh, muy mu dëkk fi nga xam ne mooy Sédhiou euh, moom la ñu invité tey ci assemblée national tamit moom moo nekk njiitul commission délégation honorable député ñoo ngi lay nuyu. waaw Abdou Khadre maa ngi lay fay di nuyu waa rajo bi yëpp auditeurs yëpp du ñuy déglu donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi. Hmm. waaw pour présentation bi yow yaa ngi dëkk Sédhiou nga nekk membre ci parti bi di Pastef lan nga ci mën a yokk. waaw bon ci euh, présentation bi mun naa ne Sédhiou laa dëkk donc euh, nekk député ñu faluma ci liste départementale bu Sédhiou coalition Yewwi Askan Wi donc euh, ci biir Pastef maa ngi fa man maay premier secretaire général adjoint nekk euh, membre du bureau politique voilà donc loolu daal laa ci mën a yokk donc euh, en tant que euh, politiquement maa ngi yëngatu dans le département de Sédhiou. d'accord dinañu ñëw ci département bu Sédhiou ak euh, benn Bokk Yaakaar ak Pastef ndax foofu ban parti wala ban coalition moo fa moo fa ëpp doole ak jafe-jafe Sédhiou aussi. Euh, dinañu si ñëw ak boo amee xalaat ci maire ba ni mu yoree dëkk ba euh, incha allah dinañu si euh, dikk mbokk yi émission bi nag danañu waxtaanee lu jëm ci wàllum. Euh, déclaration politique général bi premier ministre bi def fan yi ñu génn euh, ginnaaw déclaration politique générale boobu nag dinañ waxtaanee motion de censure bi dinañ waxtaanee rapport Cour des comptes bi nga xam ne jamono ji coow lu bari am na ko euh, ak yeneen yi nga xam ne am na assemblée nationale léeg-léeg ngeen dégg ñuy wax ne député yi dañu fiy nekk di yëkkati kàddu yoo xam ne léeg-léeg ay saagante wala kàddu yu ñàkk war ma ñuy waxtaan tamit ci nemmeeku tur bu Sonko ak ñetteelu candidature président Macky Sall Euh, honorable député euh, ñu commencé waxtaan wi euh, ak li nga xamante ni tey moom mooy déclaration politique général bu Amadou Ba déclaration politique général boobu yéen coalition Yewwi Askan Wi ne ngeen du declaration politique général boo xam ne bu dal seen xel la ak bu ngeen am yaa amu leen yaakaar tamit ne mooy saafara jafe-jafe Sénégal yi fii ak 2024 fan ngeen ko teg. waaw man euh, déclaration politique général premier ministre man sama bopp bu ma jëlee parole dama ko tuddee euh, discours primatorial de glorification parce que euh, maanaam dafa présenter bilan Macky Sall di takk tagg président Macky Sall ne bilan bilan bu baax la donc ne jàpp na ni donc lépp lu ñu defoon diggante 2012 ba 2022 comme lu baax la. Hmm. ñoom dañ koy gën a dëgëral wéyal ko donc loolu la ñuy woowee continuation ak consolidation. te muy déclaration politique générale boo xam ne ba lu yàgg la dafa gudd. e en plus euh, lu ci gën a doy waar mooy ni euh, dafa ñëw fekk session budgétaire bi jeex ñuy fàttali dañu génnoon ci session budgétaire. pratiquement mu doog a ñëw. te lu gënoon moo ñu mu def ko avant session budgétaire bi. maanaam ñu présenter vision globale bi. ku nekk ministre bu nekk nag ñëw soog a présenter sa budget mais dafay wuñ ko noonu malheureusement donc répétition la woon pour ñun maanaam saful dara daal parce que ñu lu bees lu mu indi. wala amul njëriñ daal no euh, bëriwul njëriñ wax dëgg yàlla moom bëriwul njëriñ bon benn njëriñ rek la am parce que ministre yu fa jàlloon yëpp pratiquement doonoo woon dégg ñuy tudd premier ministre. dafa mel ni woon dëkk bi président de la république ak ay ministre rek ka fi nekkoon mooy lu lu fi newoon balaa ñu koy fal mais bu mu ñëwee gis nañ ñu premier ministre alors que pratiquement dafa invisible woon ci scène politique bi loolu daal mooy ci lu bees mais soo xoolee contenu bi lu ne ci biir déclaration politique générale mm-hmm. amul dara lu mu indi lu bees loo xam ne xamuñu ko woon parce que 34 ministres yoo xam ne jàll nañu euh, commission mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ñëwaat ñoom ñëpp jàllaat plénière mm-hmm. ku nekk présenté sa sa sa sa programme ak sa budget. mais est-ce que jëlul programme yooyu yëpp rek def seen moom la jël dajale parce que soo ko liiree soo liiree document bi da xam ne moom la jël dajale ministre bu nekk da ko yónnee contribution moom mu def synthèse ba. donc gisuñu dara lu bees par rapport ak euh, ñun euh, liggéey bu ñu defoon ci biir budget bi moo tax ñu jàppoon ni déclaration politique générale lu gënoon mooy mu defoon ko avant ñuy commencer session budgétaire bi. te yaakaar naa ni waa PDS loolu nañu proposé woon. mais ñoom dañu ne woon premier ministre am na trois mois te trois mois yooyu ñuy wax en réalité euh, maanaam du dëgg parce que sooy xool mooy aspect yooyu ñu falsifié ci biir réglement intérieur bi delloowaat ko ci te assemblée nationale toogul ba adopté réglement intérieur boobu mooy lu ñu ci yokkaat. donc euh, vraiment pour ñun vraiment. Euh, gisuñu daal euh, loo xam ne déclaration politique générale bi daal gisuñu si lu ñu. convaincre. gisuñu si tamit loo xam ne daal. waa amuñu si xel bu daal daal. en daal mais mais mais honorable député ñun. Hmm. dañuy faral di def déclaration politique générale par exemple tey. Euh, Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade Macky mais est-ce que mënuñu changer format bi ndax euh, boo xoolee déclaration politique générale bi comme ni nga ko waxee sànq ci marathon budgétaire bi moom la député yi doon wax discours à la nation presque moom la président di wax même même même déclaration politique générale yi fi Mohamed Dionne defoon. yi fi Abdou Mbaye defoon presque même déclaration. waaw même même bi la même bi la euh, malheureusement parce que loolu lu koy indi en général ñoom dañuy obligé. chaque fois seen déclaration politique générale ñu def présenter bilan. Hmm. parce que déclaration politique générale lu ci ëpp sax ay bilan lay doon. Hmm. daf nañ fi lii daf nañ fi lii daf nañ fi lii daf nañ fi lii mel ni sénégalais yi xamuñu ni daf nañu loolu. Hmm. donc dañuy bëgg di fàttali. alors que déclaration politique générale da nga war a projeté wu ci avenir lan nañu war a def si. at yii di ñëw parce que bon sooy xool tamit déclaration politique générale boo xam ne pratiquement yow benn at nga am donc projection bi mënul sore Ah, waaw parce que benn at moo ko fi desee avant 2024 di jot donc euh, loolu daal moo tax déclaration politique général impact bu mu waroon am solo bu mu waroon am njëriñ bu ñu bu mu waroon am ñu en tout cas gisuñu ko sentiruñu ko waaw mais man dama gis na ñoom bu ñuy projeté dafay passé 2024 lu waral loolu waaw bon loolu xam nga euh, loolu moom euh, dañ ñoom ñooy yore seen plan parce que am na lu mu wax nee na PSE e, nga xam ne horizon 2035 la ñoom ñoo daf PSE daf ko horizon cinq mais dañ fi fekkoon benn document bu ñuy woowee prospective Sénégal 2035 moom rek lañu jël ah jël PSE boobu yóbbu ko ci horizon boobu mmh. mais euh, leneen li dafa ne PSE dinañ ko tëggaat mmh. xoolaat PSE réviser PSE réactualiser PSE ñu ne loolu amul njëriñ puisque yéen 2024 da ngeen fi war a dem mmh. mais lu tax ngeen di tëggaat PSE am ngeen un plan d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP 2 mun na leen yóbbu ba fii ba 2024 loolu ngeen war a def parce que soo leen ko defee xaalis boobu ngeen di dugalal ci PSE mais 2024 élection jot lu si ëpp euh, lu ñu wër ni Macky Sall day daanu wala du Macky Sall du présenté waat en tout cas mbër bu fi benn Bokk Yaakaar di teg gëmuñu ni day gañe donc beneen président ñëw toog amaat vision am am plan am. Euh, lan moo tax nga ne euh, mbër mu Macky Sall jiital dafay daanu. non parce que bilan bi baaxul bila boo xam ne ñëpp gis nañ ko actuellement rapport Cour des lu mu wone ci wàllum euh, mal gouvernance bu am ci dëkk bi euh, gis nañ tam bilan ci wàllum dund bi dund bu cher bi waaye cher na dëkk bi kenn damul kenn dikkul embouteillage yi bëri na ah insécurité bi. waaw jafe-jafe yi daal euh, jéggi na dayoo. te jàpp noon ne jàppoon nañu ne Macky bu muy ñëw dafay indi rupture. parce que dañu jàppoon ni day def lu gën lu fi Abdoulaye Wade bàyyi woon mais gis nañu pratiquement si domaine secteur yu bëri su fekkul daful sur maanaam bougé wul ah dafa dellu ginnaaw. d'accord mais honorable euh, keroog déclaration politique générale bi dañu dégg Amadou Ba mu ne Sénégal dund gi dafa gën a ñoŋ te ñu ñu gis ne euh, sénégal yi dañu gën a dañu gën a sonn euh, ñoom dund gi ñu doon wax sax dañu koy wàññi dafa yokk fi mu nii am na si yoo xam ne mënuloo koo gis. Mm. léegi kàddu yooyu. Euh, lan moo ci sa xalaat beneen bi aussi am na député yu bari euh, ñu ko interpellé ka ne ko euh, bala nga ne naam ne fa Sénégal mënul avancé te te nekkul réew mënul avancé sans mu nekk si jàmm te yéen da ngeen a bëgg troisième candidature boo xam ne mënut a indi jàmm ci réew mi ba léegi loolu tamit gis nañ ne waxu ci lu leer. non non moo yaakaar naa ne ñoom dañoo xaw a déconnecté réalité yi parce que ñoom lu Sénégalais yi di dund ñoom xamatuñ ko ñoom ñoo ngi seen beneen monde boo xam ne bokkul ak euh, en tout cas lu Sénégalais yi di dund parce que soo xoolee lu ci ëpp ñoo ngi ci diggante ñaari avion mm-hmm. di dem ay Paris di dem ay euh, Washington di dem di ñëw pour ñoom euh, en tout cas jàpp ni TER beeg BRT yeeg chantier yooyu infrastructure yooyu mm-hmm. en mooy doxal dëkk bi alors que dëkk bi base bi il faut ñu jàpp ni mooy économie bi économie lu si jiitu mooy mbay mi. Mhm. mbay mi soo soo jógee ci mbay mi sàmm ji. nga mhm. jógee ci sàmm ji napp ji. Mhm. yooyu mooy base bi après yeneen secteur nag soog a ñëw transport bi ah artisanat bi industrie bi. et cetera et cetera mais sooy xool. loolu est-ce que waxu ci. non wax na ci mais maanaam sentiroo maanaam ambition bu rëy ak volonté politique boo xam ne Euh, maanaam ñii nañu yóbbu jële ci point A yóbbu ñu ci point B maanaam ñoom soo leen dégloo ñoom dañuy gérer situation bi rek maanaam routine la doon maanaam lu ñu lu tubaab di naan routine mooy maanaam amul dara ñu ci yokk mooy situation bi nu mu demee nii ñoom duñ ci duñ euh, maanaam duñ ci jógee ah jëlee ñu ci situation bi yóbbu ñu situation bu gën bi. Hmm. donc ñun loolu nañu gis daal maanaam ah, ñàkk ambition. manque d'ambition ak volonté politique. waaw mais mais honorable après yéen coalition Yewwi Askan Wi dugal ngeen ab motion de censure euh, pour daaneel gouvernement bi mais mujjul sotti. waaw mujjiwul sotti effectivement parce que motion de censure bi juróom fukk. Euh, voix la am ak juróom muy cinquante cinq voix te soxla woon nañu quatre vingt trois voix pour motion de censure bi sorti mais malgré tout dañ jàpp ni motion de censure bi dafa jaadu parce que xam nga premier ministre constitution moo ñu may sañ-sañ boobu assemblée nationale suñu amee dix sept députés mën nañu daaneel gouvernement bi. Mm-hmm. donc pour daaneel gouvernement bi nag il faut nga dugal lu ñuy woowee motion de censure parce que premier ministre bu mu defee déclaration politique générale constitution may na ko mu poser question de confiance mooy laaj député yi que man lii ma wax lii ma leen wax. dal na seen xel est-ce que doy na leen mais daa mel ni dafa xaw a ragal dafu ko. Mhm. donc loolu bu mu ko daful nag ñu jàpp ni lu mu euh, présenter ci déclaration politique général fu ma bëgg yóbbu senegal ah du neex. Mhm. ñu ne nag ñun nag opposition bi yeewi askan wi surtout Sénégal yi bu ñuy fal dañu ne en tout cas euh, ñu am damee fa taxawaayu opposition. opposition nag responsable mais opposition bu radicale boo xam ne lépp lu ñu gis nii day gaañ sénégalais yi. Mhm. dañu taxaw temm daf faire face au gouvernement pour ne leen ah ñun de lii d' accorduñ ci. te loolu nu ñu mun a wonee suñu euh, ñàkk d' accord ak loolu premier ministre présenté mooy motion de censure parce que bu mu defee déclaration politique générale ba pare ñun tontu nañu euh, moom. Euh, mu jël parole wax ñu demaat deuxième tour de parole ñu ñu waxaat ni ñun question yu ñu ko posé ak laaj yu ñu ko laaj yu bëri tontuwu ci bu mu jëlaatee parole tam noonu la def rek survolé débat bi après pare débat bi noonu la jeexee amul vote amul dara. pour wane ne nag sénégalais ñun ànduñoo Amadou Ba lu mu ñu présenté parce que Amadou Ba daf ñu ne moom dafa bëgg continuer Macky Sall lu mu fi doon daf ñu ne ko ah léegi dañuy déposer motion de censure looloo indi motion de censure bi malheureusement euh, ma euh, nombre de voix yu ñu ci euh, yu ñu ci doon wut amuñu ko mais découragé wuñu parce que dañuy continuer ci liggéeyu assemblée nationale bi mooy ay commission d' enquête parlementaire commencé nañ ko xalaat ci lépp lu jëm ci rapport force Cour des comptes lu jëm ci wàllu Covid 19 bi te nga xam ne yàqute yeeg toj-toj yeeg ak vraiment lépp loo xam ne mooy ci mal gouvernance fës na ci rapport boobu. d'accord dinañ si ñëw euh, honorable député. Mm-hmm. mais seen motion de censure bi. est-ce que waxtaan bi ngeen ci waroon a waxtaan ak waa euh, wàllu Sénégal waxtaan boobu amoon na. waaw waxtaan nañ ci ak wàllu Sénégal yaakaar naa ne suñu euh, yeewi askan wi barki démb daf nañu benn point de presse. Mm-hmm. te leeral nañu askan wi yëpp. Euh, à travers le président du groupe parlementaire muy Birame Souleye Diop yan contact la am ak euh, le président du groupe parlementaire Mamadou Lamine Thiam ak kàngam ak responsable bi ci euh, coalition groupe parlementaire wàllu yu mel ni Mamadou Lamine Diallo nga xam ne moom voté na sax motion de censure bi ñu jàpp ni nag maintenant yi dafa am groupe parlementaire wàllu am groupe parlementaire ku nekk nag am na sa position ñu respecte position ku nekk mais lu ñu ci waroon waxtaanee ak ñoom waxtaan nañ waxtaanee nañ ko parce que assemblée nationale xam nga dafa am façon bu muy doxee voilà am na loo xam ne il foog nga daf ko à temps soo ko daful à temps rek maanaam euh, njëriñ bi dootul bëri. Mm. donc dañ jàppoon euh, motion de censure boobu. comme premier ministre daf na déclaration politique générale posé wul question confiance il faut que ñu bàyyi si tàng-tàng bi ñu déposer motion de censure bu ñuy préparer motion de censure bi nag président groupe parlementaire joxoon nañ ko mandat mu waxtaan ak président groupe parlementaire wu wàllu muy Mamadou Lamine Thiam te biram Souleye Diop leeral na ko yaakaar naa ni ba en tout cas leer na naa ñi si bopp ñëpp euh, mais euh, honorable député motion de censure bi nekkutoon lu jàmp si yéen lu ngeen waajaloon la bien avant Amadou Ba di ñëw wala bi Amadou Ba di ñëwee. après non non no non waajaluñ ko xam nga dañu ne déclaration de politique général dafa am loo xam ne dafa ànd ak déclaration politique général mooy question de confiance ñun dañu ne woon su Amadou Ba posé wul question de confiance boobu ah la préparer motion de censure mais préparer motion de censure sukkandiku ci lu muy wax xam xam nga xamaguñu loon lu ñu wax mais la ñu toog xaar mais bu mu bu mu ñëwee présenter déclaration politique générale mais gis nañ ni amul woon benn surprise parce que bon tamit xam nañ ni premier ministre Macky Sall la lu ñu indil loo xam ne xamuñu ko woon. Euh, à travers tout le budget te ñun voté nañu contre le budget loolu tamit foog ñu fàttali ko parce que dañu jóge ci session budgétaire ñun ñu voté contre le budget. Mmh. donc contre budget boobu ah. mënuñu ñëw contre budget bi ñëw ànd ak déclaration de politique générale euh, amadu Ba parce que Amadou Ba dafa ñëw def synthèse programme ministère yëpp nga xam ne présenté woon nañ ko ci budget bi te gis nañu budget bi jafe-jafe yoo xam ne ak euh, kii yoo xam ne difficulté yoo xam ne en tout cas euh, loo xam ne ñàkk leeraange bu ci am tamit ci wàllum budget bi ñàkk transparence bi yooyu yëpp moo ngi ci biir daal te looloo tax ñu voté woon contre Euh, jërëjëf euh, honorable ay Ayib Daffé nga nekk membre Pastef euh, nekk député aussi yow yaa jiite commission bi yor wàllum délégation yéen opposition bi bi élection législative yi ñu jàllee gis nañu ne seen doole yi presque ak benn Bokk Yaakaar da ngeen a tolloo doole maanaam neexoo ngeen. Mm-hmm. non inscrits yi ñëw ñu bari jàppoon ne. dina bëri yoo xam ne bu ngeen ko bëggee dina jàll mais dafa booba léegi yéen a ngi bëgg ay mbir mais jàllu lan nga jàpp ne moo ko waral ndax gis nañ ne yéen ŋàññoon ngeen euh, lu si mel ni au conseil des collectivités territoriales mm-hmm. budget mm-hmm. conseil économique social environnemental ak budget bu euh, primature ak budget bu euh, fi nga xam ne tey moom mooy présidence mais gis nañ ne budget yooyu jàll na ministère yëpp seen budget yi jàll na motion de censure bi jàllul ubbeegu leen fi benn commission d'enquête parlementaire fan la mbir yi nekk looy expliquer ci loolu. yaakaar naa ne euh, loolu lu nga wax dëgg la mais képp ku xool assemblée national xam ne assemblée nationale soppeeku na. parce que ah, su débat yi société débat yi ah da ngay xam ne léegi contradiction am na da ngay xam ne léegi opposition am na. gouvernement du ñëw rek présenter ñuy assemblée nationale bu ñu doon wax gars yi ñëw tàccu tagg ministre yi. Euh, absence yi voilà absence yi. léegi ñëppay teew te loolu opposition moo ko indi opposition parce que euh, muy yeewi muy wàllu tamit ñu leen di reconnaître également seen opposition ak yenn non inscrits yi mais euh, ñun en tout cas de notre côté muy groupe parlementaire yeewi nga xam ne 53 députés nañu am lépp lu ñu war a def en terme d' opposition ñoo ngi koy def euh, budget bi bu mu jotee bu ñu nee dañuy voté pour contre yaakaar naa ne suñu député yëpp ils ont voté contre. mooy cinq ans avec des arguments parce que débat day am da ngay gis ministre bu ñëw 9 heures balaa vote bi di balaa ñuy voté 22 heures wala 23 heures des fois donc débat day am ñu présenter suñuy argument wax ne lu tax d'accord ñëw budget bi parce que budget bi il faut que sénégalais yi comprendre ne euh, ku ko xool jàngat ko analyser ko budget préparation campagne électorale la budget préparation campagne électorale te secteur yi parce que euh, Macky Sall dafa xool euh, maanaam secteur yoo xam ne maanaam euh, yu mel ni ay commerce ay développement communautaire mooy maanaam foo xam ne moom jàpp na ni moom xaalis boo xam ne mun na ko séddale ci biir askan wi wala wàllum social hmm. ah mais jox ko ay nitam waa APR yi wala ñu bokk si ñoom hmm. moom foofu la féetalee xaalis bi mais loolu bu ñu ko defee secteur yoo xam ne dafa am solo ci wàllum koom yu mel ni agriculture joxu leen lu bëri industrie joxu leen dara artisanat joxu leen dara ah ak yeneen yeneen yeneen secteur yoo xam ne mooy secteur yoo xam ne vraiment secteur productif moo xam ne mooy koomu dëkk bi mooy richesse su dëkk mais dafa jël xaalis bi daf ko si ay secteurs yoo xam ne moom nañu naan secteur non productif dañu neewuñu ne nag élevage def élevage dafu ci xaalis bu bëri agriculture dafu ci xaalis bu bëri donc priorité yooyu du pêche pêche gën a néew budget mais lu waral loolu te pourtant. non parce que xam nga gafaga gi moom euh, soo ko séddalee <laughs> mais c'est pas infini soo jëlee mille nga ne jox naa 500 développement communautaire ah jox naa kii nu mu tuddati euh, commerce ak PME entrepreneuriat ngay naan ak yu mu créé ay xëyu ndaw ñi. Mm-hmm. ah maanaam xaalis boobu xaalis bi yëpp foofu la dem. lu si ëpp tam dem ci euh, infrastructure yi. mooy TER BRT parce que euh, ah, budget yi ay ay ay infrastructure bi dafa xaw a cher. Mm-hmm. mooy yu mu def jam ñaajo Turquie yeeg bor yi tamit bëri jéggi dayoo. tey bor yi par exemple euh, suñ la waxee ñu ne Sénégal dam na ci quinze mille milliards. quinze mille milliards si bor. même te chaque année. passé nañ kii UEMOA euh, euh, waaw ah, passé nañu ratio UEMOA nga xam ne 70 pour cent normalement. du PIB 75 pour cent. voilà donc dépassé nañu yooy yëpp donc bor bi nag il faut nga koy fay day nekk ci biir budget bi. Hmm. donc loolu su ñëwee day wàññi loo xam ne moom moo war a dem ci secteur productif yi donc ñu gis ni budget bi yàqute bi bëri na ministère yi tamit bëri. tey soo jëlee ministères yi Macky Sall bu muy ñëw en 2012 dafa ne woon au maximum 25 ministères na gestion sobre et vertueuse mais tey ñoo ngi si ci 38 ministères fanweeru ministère ak juróom-ñett te ministère yoo xam ne vraiment dañuy jàpp ni amul solo noonu parce que dañ dañ ko tas tas ko ba nga xam ne. budget bi mënul bëri. donc synergie yooyu war a am coordination bu war a am looloo xaw a des daal donc ci euh, wàllum présentation budget bi. ak euh, budget bi nu ngi ko tëggee donc ñàkk transparence tamit ci budget bi parce que gis nañ ni budget bi lu ñuy voté dañu lañu six mille milliards mais ñaata milliards ñooy yegg ci Sénégal yi lu ci bëree day jaar ci circuit corruption ak lu tubaab bi naan ay fruits financiers illicites ak loo xam ne multinationales yii di ñëw nga xam ne Macky ñoom la jox doole nga xam ne français yi turcs yi chinois yi ah ak yeneen pays étrangers mais ñooñu ñëpp dañuy rapatrier waat seen xaalis mais ñoo yor économie réew sax. ñoo yor économie économie réew bi jamono jii. ñu nekk jël bénéfice bi yóbbu. jël bénéfice bi yóbbu parce que du ñu ay entreprise dëkkuñu fi ñii seen seen réew nañu delloowaat xaalis bi donc loolu yëpp day tax ni tey Sénégal nañ liggéey mais liggéey bi du feeñ te ndool bi du wàññeeku parce que tey soo xoolee benn critère mooy indice de développement humain. nga xam ne nattukaay la ba nga xam ne euh, kuréel bu ñuy bu nekk biir Nations Unies mm-hmm. muy programme des Nations Unies pour le développement daf koy def classement chaque année mais Sénégal tey moo ngi ci cent soixante dixième sur cent quatre vingt dix pays mooy bokk na si ñaari fukki réew yu gën a ndóol ci àddina mm-hmm. te loolu lu tax te tey ay dëkk yu mel ni Mauritanie daf ñoo raw dëkk bu mel ni Cap-Vert raw nañu Corée du Sud nga xam ne ñu ak ñoom ñoo yemoon en 1970 wàllum PIB maanaam richesse tey ñoo ngi si di quinze premiers yi Sénégal la ngi cent soixante dixième donc ñu jàpp ni inégalité yi tamit maanaam tey am na ñoo xam ne am nañu ñoo ngi gën a am ñuy nóol di gën a ndóol donc politique économique Macky Sall ak politique sociale am maanaam wàññiwul pauvreté wàññiwul ndóol bi tamit yokkul koomu dëkk bi. ñu loolu daal na ñu jàpp. mais honorable xam nga tey sànq yaa ngi wax ci euh, budget bi mais économistes yëpp dañu wax ne bu ñu bëggee. Euh, Sénégal bañ a leb. Mhm. bor yi wàññeeku. il faut que mu am benn production nationale. Mhm. mais production national boobu mooy mbay mi mooy élevage bi mooy napp gi. Mhm. mais bu dee yooyu euh, état bi farataalu leen ak ak industrie. Euh, bëgg ndax FMI maa ngi déggoon plus de quatre cent nanga milliards ñoom day mel ni affaire. cash transfert ak séddale xaalis. voilà moo a intéressé que ne voilà que production. te loolu maanaam xam nga euh, économie lu muy jëriñ mooy lu ñuy woowee création de richesse. Mhm. mooy fexe alal gi nga koy yokk pour nit ñi ñëpp jot si. parce que population mi nit ñi mënal seen bopp di dab. Mhm. population yi euh, di liggéey tey ci économie normalement ci liggéey la war a sukkandiku. Mhm. mais soo xoolee politique Macky Sall fulaalul liggéey. donc lu mu gën a fullaal mooy naka lay fexe moom nguuram mu dëgëral ko ci ay bourse de sécurité familiale ay cash transfert ak yeneen ak yeneen yoo xam ne voilà séddale xaalis tey loo xam ne jëmale réew jëmalewul réew mi kanam du maanaam du loo xam ne day jur day jur koom amul rentabilité donc foofu la euh, problème mi nekk hmm. te loolu nañu bëgg sénégal yi comprendre ko ñun contre ñu bourse de sécurité familiale contre ñu cash transfert mais lu ñu wax mooy nañu jëlaat priorité yi mooy mbay mi mooy sàmm ji mooy napp ji mooy industrie ak même commerce commerce dañ ko war a teg ci raay mais secteur yu bëri tey dañu maanaam dañu sonn dañu nekk ci jafe-jafe yoo xam ne nguur gi jëlee tey soo jëlee transport mais transport moo ngi ci jafe-jafe ju si yëngu ñëpp ñoo ngi ne ñoo ngi si jafe-jafe pourtant secteur bu war a dox la ak yeneen nag commerce beeg yooyu yëpp mais xam nga xam nga honorable tey gouvernement Macky Sall mhm. ñoom buñ commencé 2012 Euh, di seddale xaalis. Hmm. mbir mi demul kay xanaa war nañu changer vision te tey dama gis ne ay FMI ak ay banque mondiale ñoom dafa mel ni daal sawaruñu jox Sénégal xaalis mu investir ko si mbay mi waaye nañ jox Sénégal xaalis mu def ko ay quatre vingt mille ak ay. voilà voilà loolu lu tax loolu lu ko indi mooy maanaam ñoom dañu gis ni lañoo lajj maintenant comme que lajj nañu amuñu maanaam vision bu sore ñoom vision bu ñu am mooy deux mille vingt léegi deux mille vingt 2024 xam nañ ni politique économique yi ñu yii ñu ne euh, di dérouler mënul tax ah ñu jëlee Sénégal ci situation bu mu nekk ci guute bu mu nekk yóbbu ko ci benn situation boo xam ne situation bu tane la. donc léegi ñu ne léegi nañu def tricherie tricherie bi mooy jël xaalis di séddale. yaa nit ñi yaakaar ni ah Sénégal am na xaalis puisque ñoo ngi ñuy yónnee ay cash transfert te loolu xam nañ ni lijjantiwul dara maanaam dina soulager nag mais poussé wul nit ñi nit ki balaa nga koy jox jën chaque jour. mais jàngal ko mu napp loolu mooy loolu mooy politique u développement mhm. te soo ko jàngalee mu nappal muy muy nappal boppam moom dina dina di dina créer entreprise dina jël ay sénégalais dugal leen ci si pour ñun modèle bi loolu la ah. mais modèle bi du ay entretenir te euh, soo xoolee bourse de sécurité familiale ñoom registre bu ñu yore mais ñu si bëre waruñu ko woon jot ay tappale moo leen ci dugal ak par parloo politiciens yi ñoo ngi ci biir registre bi donc lu ñuy yaakaar ne ñoom sénégalais yi ñoo ngi koy jot au contraire ay militants APR ay militants Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo si ñoom ñoo si bànneexu ñoo si jëriñu à la place de Sénégalais. mais euh, honorable député euh, Ayib Daffé moom la ñu invité ci rajo Rewmi FM yéen vote nañ budget bi 6400 milliards ci assemblée nationale waaye. Mhm. Euh, dafa am ay boroomu xam-xam yoo xam ne nee nañ Sénégal euh, comme ni ñu ko waxee sànq amuñu production euh, nationale. Mhm. ñun presque. dañuy jéggaani rek. Mhm. ñun dañu yà suñu budget ñoo ko sukkandiku ci ay recettes fiscales. ak ay taxes. Mhm. Euh, leneen li mooy dem lebi. Mhm. beneen bi mooy tàllal loxo. ñaan. ndax ministère du ministre du budget dégg naa ko mu ne plus de mille milliards. Sénégal dina ko lebi. pour pour compléter euh, déficit budgétaire bi. déficit budgétaire waaw. léegi six mille quatre cent milliards yooyu est-ce que jàpp nga ne état bi mën na ko mobiliser. waaw bon loolu moom xam nga euh, euh, exécution budgétaire moom euh, gëmuñu ni état bi dina mobiliser pour ñun dañu jàpp ni déjà budget bi sincère mhm. waaw parce que taux de croissance bu ñu projeté ñu ne 10 pour cent ñun ja gëmuñu ni Sénégal en 2023 dinañ yegg 10 pour cent parce que lu lu tax ñu wax ko mooy ñoom sax seen seen am na document bu ñu naan déclaration sur les risques budgétaires ñoom dañu jàpp ni 2023 année préélectorale la te ñoom seen analyse bopp waa ministère des finances nee na année préélectorale yu si ëpp croissance bi day wàññeeku maanaam euh, koom bi du damee noonu économie bi day nekk au ralenti investisseurs yi tamit du ñeme dugal seen xaalis parce que dañuy jàpp ni ah à tout moment régime bi mun na changer manifestation yi mun nañ bëre te situation boobu nañ jëm su fekkee ne Macky Sall mu ngi continuer dëgër bopp bëgg a persister ci problème mu troisième mandat bi Euh, donc croissance bi euh, bu ñu projeté à 10 pour cent ak budget bu ñu naan recette yu ñuy yaakaar gëmuñu ne dinañ ko am te euh, loi de règlement yi commencé na génn cour des comptes génnee na 2018 ak 2019 te lu si bëri commencé na si feeñ gis nañu écart yoo xam ne ay milliards yoo xam ne jàppoon nañ ni état bi dafa ne woon dina ko am mais mu jiwu ko am donc tey euh, loolu Cour des comptes moo ngi koy leeral. donc jàpp nañu amuñu yaakaar ni 6400 milliards yooyu état bi dina ko mën a. relever parce que seen confiance. Euh, bailleurs yi même confiance bu ñu amoon ci Sénégal moo ngi wàññeeku. d' accord jërëjëf euh, honorable député mais man gëm naa sax ne même taux de croissance bi bu yeggoon sax deux chiffres vingt damay jàpp ne taux de croissance la boo xam ne. c' est pour les étrangers. ndax ndax entreprise étrangères yi bu dee ñoom ñoo yor koomu réew mi. vraiment ñun du suñu taux de croissance. voilà te ñoom bénéfice bi dañ ko jël yóbbu seen réew. non loolu moom loolu moom leer na nañ tey secteur yu clé yëpp soo ko jëlee. te nga jël banques yi mais banques yi si ëpp su fekkul français yi nga xam ne ñoo njëkkoon ne mais marocains yi ñoo ko yor léegi. Mm. ah donc assurance pareil. nga jël suñu pétrole ak suñu gaz. ndox mi ah ndox mi français yee ko yor. terre bi français yee ko yor. Ah, BRT bi français yee ko yor autoroute bi ah. français yee ko yor même commerce bi léegi ah. ak Auchan français yee ko yor donc lépp lu baax lépp loo xam ne tey euh, maanaam muy. Euh, indi day jur koom dëgg-dëgg. Mhm. ah français yee ko yor. même mbayum noor mi. même mbay voilà presque étranger yee ko yor tey soo demee soo demee dans la vallée du fleuve nga dem ay côté Dagana. Ah, lu ci ëpp euh, nga dem même ICS indien ko yor donc suñu économie yëpp moo ngi ci loxo euh, doxandeem yi moo ngi ci euh, loxo ñoo xam ne multinationales yi mhm. te ñoom suñu paree il faut sénégal yi comprendre ni ñoom seen richesse boobu yëpp seen bénéfice dañ koy rapatrier mhm. donc loolu nañu signé ak Sénégal mhm. léegi leneen li ah mooy jëm ni ñun lu si ëpp ñun lu ñuy consommer mais dañ koy importer bitim réew lay jóge mu voilà donc ay euh, balance commerciale u Sénégal ah dépassé na deux mille milliards maanaam ñun tey soo xoolee ñun lu ñuy luy génn ci réew mi ci wàllum alal mhm. ah, ak luy dugg ah luy luy dugg ëpp na ko deux mille milliards que luy génn mhm. donc loolu daal mooy difficulté Sénégal te ñépp xam nañu tey lépp loo xam ne da ko importé ah maanaam na nga ko jëlee produit ñu ngay jëlee bitim réew yaa ngi jël ay emploi hmm. di ko jox waa bitim réew hmm. waaw parce que usine bitim réew yi ngay doxal day dox voilà donc ñun lu fi nekk lu fi des mooy commerce hmm. te commerce xam nga ni marge yi euh, mooy loolu bëriwul te ñëpp mënuñoo nekk commerçant parce que il faut que ñuy am ñuy jël jaay ak ñuy jënd dëgg la donc loolu daal mooy jafe-jafe bi dëgg la wàllum koom commerce moom bala muy am njariñ mooy li ñu produit am produit euh, production nationale bu bëri oh, bëri waaw léegi Euh, honorable député yéen coalition Yewwi euh, keroog maa ngi dégg seen benn député di ko wax euh, Abba Mbaye kane yéen ñu bari dañu jàppoon ne da ngeen a ñëw assemblée nationale pour rouber pour bloquer lu ñu andi ngeen ngeen ngeen sànni sa àll ba ne ne baaxul ban comportement ngeen amee ak yow ndax yow boo doon def analyse tey jàpp ngeen ne yéen coalition Yewwi bi ñu ngeen ñëwee assemblée nationale léegi def leen lu leen askan bi leen voté loon doon xoole waaw bon ñun de eh, yaakaar naa ne alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax depuis bu ñu fi teewee assemblée nationale euh, mun naa ne sooy xool quatre vingt pour cent député yu coalition yeewi bii mooy seen premier mandat waaye eh, seen taxawaay euh, vraiment ñoo ngi koy rafetlu euh, ñoo ngi rafetlu taxawaayu groupe parlementaire parce que lépp loo xam ne mooy défendre askan wi lépp loo xam ne mooy défendre Sénégal. ci wàllum constitution ci wàllum règlement intérieur ci wàllum loi yoo xam ne assemblée nationale moo ko voté wala décret yoo xam ne Macky moo ko jël ah euh, député yi ñoo ngi koy def voilà lépp loo xam ne ñoom yëg nañ ko. Mm-hmm. Euh, te loo xam ne day jëmalee Sénégal kanam lépp loo xam ne tam yëg nañ ko loo xam ne day yàq ñoo ngi koy dénoncé. d'accord donc position boobu mooy position républicain boobu nañu am biir assemblée nationale te depuis bu ñu fi ñëwee sentir nañu yu bëri tey ñoo ngi koy bougeloo. ci biir assemblée nationale. parce que non bëri na tey soo jëlee ci wàllum euh, séance yi nu muy doxee euh, maanaam tey dafa am loo xam ne moom la ñu naan traduction maanaam euh, député yëpp dégg nasaraan. ñu si bëri seen làkk ñu dégg seen langue nationale ñi am na député boo xam ne ñun Sédhiou la jóge moom soose la gën a dégg soose lay waxee. Mm-hmm. te assemblée nationale daf lu ñuy noon traduction mm-hmm. interprète interprète mm-hmm. mais bu ñu ñëwee système bi doxaluñ ko. mais ñun ñoo kaas ba ñu doxal système bi am na leneen ci commission yi tamit rapport yu jóge ci commission yi bu ñu ñëwee plénière dañ doon bàyyee ba jour J bi ñu ñuy jox rapport yi mais dañ ko kaas parce que dañu ne règlement intérieur moo ne nañuy jox rapport yi 24 heures avant mais loolu dañ ko kaas. ba ñu jox ministre des forces armées daawul am débat. am débat mais indi nañ fi débat mais débat bi tenir nañ ko la manière responsable parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ xam nañ lan mooy secret défense. Hmm. donc suñuy wax ci armée wala suñuy wax ci sécurité xam nañ ñu ci war a waxee ne xam nañu nañ ñu ci war a débattre industrie sax daanu woon am débat am na ay ministère débat bu ñuy wax sax ministère yu bëri bu ñuy ñëwee pratiquement lu ñuy woowee débat daanu woon nekk débat. parce que euh, souvent oppose opposition dafay néew doole ba nga xam ne temps de parole bi day néew. 90 pour cent du temps parole majorité moo ko yor léegi sooy xool temps de parole lañ koy séddale. opposition bi am moitié majorité bi am moitié donc loolooy doxal assemblée nationale loolooy na débat contradictoire scandale yoo xam ne moo ngi ci d' euh, enquête parlementaire mu d' accord danañ si euh, ñëw. Mhm. danañ si ñëw léegi gis nañ fi tamit am na ñaari député yu bokk si yéen yu dooroon Amy Ndiaye ñii bi comportement Amy Ndiaye ñii bi ak ñaari député yooyu lan mooy sa xalaat. waaw luñ ci xalaat mooy euh, vraiment mooy ni ay provocation provocation la parce que depuis commission yi dañu gis ni euh, waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu sentiree ni ah député yu yeewi indi dañoo yaakaaroon ni ay suppléants nañu waaye ñii <laughs> maanaam mm-hmm. euh, dominé nañu leen ci débat yi mm-hmm. wax dëgg yàlla dominé nañu leen ci débat parce que xam nga commission huis la mm-hmm. dañoo indi stratégie bu bees ñu ne ñii suñu leen bàyyee nii ah euh, du sotti ñu yebal ay jigéen ci Amine Ndiaye ñi bi nag ci jigéen yooyu la bokk nekk ay député ñëw du ñu ruube du ñu saaga du ñu déstabiliser du ñu provoquer. looloo indi problème bi ak entre euh, suñu député yi ak Amin Ndiaye ñibbi bi loolu nag ci commission yi la commencé ñun loolu yëpp ñu muñ ko mais lu indi problème bi mooy Amin Ndiaye ñi bi bu mu ñëwee ah di saaga kilifa diine ku nga xam ne mooy sëñ Moustapha Sy mooy responsable euh, pur nga xam ne député yooyu yeewi askan wi yooyu Massata Samba ak Mamadou Niang fa fa la ñu bokk provocation boobu nag bu mu ko indi bu mu ko ñëwee wax wax ko ci plénière bi dañu ne woon dañ ko damoon gis ah ñu dox euh, tànk jàmb pour mu présenter ay excuses jéggalu problème boobu ñu dépassé ko mais dafa bañ dafa lank ne moom lu muy wax moo ngi ciy persister lu muy wax tamit moom euh, am na droit wax ko te ñëpp gis ni ay wax yu ñaaw la ah loolu bu mu amee dañoo daje woon ñu ne vraiment Amy Ndiaye Gniby mii daf ñuy wut provocation la dafa am ay góor yoo xam ne ñoo ngi ci Benno Bokk Yaakaar ñoom amuñu seen fit ñëw taxaw ak ñun ah daf face à ak ñun ñu yónni leen pour ñuy jouer rôle boobu pour ñuy jouer le daf le sale travail ñu ne su boobaa nag ñun comme sénégalais yi ñoo ñu fi indi ah ñu jiital intérêt sénégalais yi lépp lu ñuy wax nga xam ne xam nañ ni lii ay wax yu ñaaw la wala ay wax yu bon nañ ko ñaawlu mais euh, lu ñu waroon daf daf nañ ko saisir nañu président assemblée nationale saisir nañu eh, yëgal nañ ko sénégalais yi nañ ko bàyyeek ak yi. d'accord loolu bu mu amee nag. Mhm. am ba séance bu mu euh, kii bu mu ñëwee lu ministre de la justice. suñu collègue yi gis Ami Ndiaye ñii jour boobu euh, vraiment dafa indi woon euh, reewande ak indi ñàkk euh, teggin bu nga xam ne jéggi na dayoo ñu dem nag comme règlement intérieur may nañu ko ñuy def lu ñu woowee rappel au réglement yéeg ci tribune bi di rappeler président na dalal Amin Ndiaye ñii bi na wax ak Amin Ndiaye ñii bi wax ak ñeneen ñu mel ni Amin Ndiaye ñii bi ay ñoom Koura Macky ak yeneen député yoo xam ne vraiment seen comportement euh, rafetlu wuñ ko. pour ñu euh, séance bi mun a dal séance bi nit ñi mën a déggante ku nekk joxe ay argument ku nekk mun a joxe ay idée loo xam ne sénégalais yi nañ ci jëlee dara. Hmm. si loolu nag. Euh, la wax ak suñu collègue euh, la interpellé suñu collègue boobu ne ko euh, collègue bi dafa ne am na député boo xam ne sax taxawoon na fi ah te kii saaga kilifa diine Amy Ndiaye ñi bi ne ko maa tey insident bi fa la amee incident boobu nga xam ne ñun vraiment ñu ngi koy regretter mais lu ko indi mooy provocation Amy Ndiaye ñi bi te lu ko indi tamit mooy président assemblée nationale tamit taxawaay bu mu war a am. amu ko amu ko. loolu moom mun nañ ko wax. parce que règlement intérieur bi da ko jox ay sañ-sañ. ay prérogatives ay prérogatives yoo xam ne lu ñuy woowee rappel à l'ordre musu musu rappel à l'ordre député lu ñuy woowee censure mooy mun nga tere député wax. mosu mhm. kaa def lu ñuy woowee expulsion temporaire. mun nga expulser député ne ko yow tey séance bi waroo cee bokk wala séance suba bi waroo cee bokk yooyu mooy sanction yoo xam ne règlement intérieur may na ko président assemblée nationale mais mosu see appliqué benn depuis assemblée nationale bi le 12 septembre ah est am na dayoo pour jiite assemblée bon gis nañ ni ñu ko falee jaarul yoon ñun loolu lañ jàpp parce que gis nañu élection bi nu mu demee le 12 septembre te gisoon nañ ni tamit légitimité bu mu war a am dayoo bu mu war a am ci biir Bennoo Bokk Yaakaar waa Bennoo Bokk Yaakaar sax respect bu ñu ko war a jox joxuñu ko parce que dafa mel ni président de la République moo ko parachuté mais loolu yëpp jàpp nañu jàlloon na léegi ñun pour ñun nañu concentré wu si lii ñëw ñu jàpp ni comme yàlla daf na ni ak malgré lépp moom moom mooy président assemblée nationale nañ ko jox cër bu ñu ko war a jox mais gis nañ ni vraiment euh, en tout cas amagul euh, dayoo boobu euh, amagul responsabilité président assemblée nationale lu si ëpp lu muy def day far. moom dafa mel ni moom président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar la te lu ko far ba ngoom wax loolu lay def lu ko yum wax loolu lay def. ak yeneen député yoo xam ne ñoom am nañu influence ci ñoom mais lépp loo xam ne opposition bi da koy wax day jàpp ni moom en tout cas loolu concerné wu ko bon moom euh, du du ci en tout cas du ci àddu. d'accord mais mais loolu daal la ñu. mais honorable seen oto yi fan la toll yéen député yi. oto yi de yaakaar naa ni ñëpp gis nañ ni mu demee oto yi problème bi ñëpp gis nañ ni ci présidence lu jóge président assemblée nationale euh, bu ñu ñëwee daf première réunion bureau dañu nee woon comme chaque année ak questeur euh, nu muy demee assemblée nationale su suñ ko installé dañuy si budget bi dañuy jël euh, benn partie xaalis bi ñu jëndee ci jëndal ci oto député yi loolu bu ñu jëlee décision boobu ah ñëpp jàpp ne amul woon problème mais ñu dem ba ci budget bi ministre de finance bu mu ñëwee ci biir rapport am ñu gis ay indemnités yu ñu war a jox député yi fa nañu interpeller ministre des finances ah mu ne moom dogal boobu euh, dañ ko dig digal loolu pour mu euh, ñuy jox ay indemnités olo lieu ñu leen di jëndal oto dañ leen di jox ay indemnité ay indemnité mensuelle yoo xam ne député yi ñoom dañuy jëndal seen bopp oto te ñun loolu lu ñu ko gisee politique la parce que ñëpp xam nañu décision bi ci président Macky Sall la jógee président assemblée nationale amul amu ci responsabilité. lan la questeur amu ci lu mu ci jublu mooy moom jàpp na ni tey euh, quatre-vingts députés yu bokk ci opposition ku nekk mu jox laa mu jox la oto. ku nekk man ma dem Sédhiou su Souleye Diop dem Thiès euh, Daba Wañaan dem Daaru Muxti ah waaw mais mais mais pour noonu la dëkk bi doxee malheureusement voilà pour euh, moom pour moom euh, daf ñu tardal pour moom nañu tardal le maximum possible balaa ñuy mën a jot oto am bañ a am ay moyens parce que pour moom jàpp nañ ñun oto député yi dañ koy campagne ok donc dañuy opposé à euh, si nguuram dem ci si gox yi ak goxaan yi donc daf ñuy may ay moyens supplémentaires donc dafa ñeen ñun duñu dooleel daf ñuy néewal doole parce que loolu la wax réduire l'opposition à sa plus simple expression moom soo ko déggoo moom moom euh, maanaam dafa cohérent ci logique boobu moom lépp loo xam ne day néewal doole opposition moom ci loolu lay dox lépp loo xam ne nag pour moom jàpp na ni day may doole opposition te yaakaar naa ni député député la waruñoo seet ni député majorité wala député opposition député loo xam ne droit la ñoo ngi koy doon daf depuis ay législature yi di jàll te lu mais balaa loolu moo euh, moo wax la ñun en tant que président commission ak membre bureau assemblée nationale mais ñoom lañu am droit autofonction mm-hmm. bokkul ak auto député yi mm-hmm. mais auto yooyu mais euh, législature bii passé mais dañ ko maye maanaam député yi am na ay député yoo xam ne jamono jii ñu may wax ak yow. ñoo xam ne dañoo bokkoon ci président commission nekk également membre du bureau ñu fi jóge ñoo ah, ñooñu ñaari oto nañ leen may. pour rek xañ ñu oto yi. tey amul benn membre bureau boo xam ne tey ngay vice président. wala ngay secrétaire élu wala ngay président de commission am nga oto. mais mais président commission dañ leen doon jox oto. waaw ak membre bureau yi. mooy vice président yeeg secrétaire élu ak questeurs yi. mais oto yooyu maye nañ ko. ñun bu ñu ñëwee fekk ñu fi benn oto. mais ñoo ngi leen di jox carburant yooyu. waaw non yooyu moom ñoo ñu koy jox parce que mënuñu koo bañ a jox. parce que mais léegi lan moo tax euh, ñaxtu wu leen ko. ngeen koo ñaxtu parce que ñun jàpp nañu c'est pas l'essentiel ñun lu ñu fi indi oto ah bu ñuy bu ñuy bu ñuy falu oto yoruñu ko woon te battre nañu campagne euh, daf face à des ministres à des DG ñu gañe leen. donc jàpp nañ ñu euh, peut-être euh, problème mu oto yi c'est pas l'essentiel tey sénégalais yi lu ñuy dund. jafe-jafe yi ñuy dund. ñun loolu moo ñu yitteel. d'accord voilà tey suñu ñëwee nag di kaas suñu problème personnel ñun de maanaam daf ñuy euh, c'est un peu gênant quoi voilà du ñu nekk à l'aise te ak dëkk bi nu mu méttee jàpp nañu loolu moom man ñun ñu si ëpp am nañu oto am nañu seen oto véhicule personnel mais loo xam ne wàllum élégance républicaine la Euh, maanaam tey euh, opposition euh, assemblée nationale dam côté opposition wala assemblée nationale nekk majorité lu ñu war a am dañ ko war a am parce que loolu loolooy règle bi loolooy. loolu la ñu édicté. d'accord léegi honorable député li nga xam ne mooy commission d'enquête ci cinq milliards yi fan ngeen si toll. bon loolu déposé nañu xam nga commission d' enquête parlementaire da ngay def demande de mise en place d' une commission d' enquête parlementaire résolution lay doon. waaw projet résolution boobu moom ngay déposé si bureau assemblée président assemblée nationale nga koy transmettre. soo ko transmettre nag léegi dafa am lu ñu woowee conférence des président bureau bi mooy njëkk daje. bureau bi mooy xool est-ce que yow. Euh, demande de commission d'enquête parlementaire boobu jaarale na yoon respecté na règlement intérieur bi est-ce que pour ñu ko recevoir recevoir. Mm-hmm. su recevoir ñu jàllaat su beneen kuréel bu ñuy naan conférence des présidents conférence des présidents boobu nag mooy retenir date jour bu nga xam ne député yi dañuy dajee plénière ah pour voter résolution boobu est-ce que d'accord nañu ci mettre en place commission d'enquête parlementaire ak ñan nañu war a tànn ñu bokk ci commission d'enquête parlementaire boobu ci procédure boobu nañu nekk mais déposé nañ ko ci 45 milliards yi te am na yeneen commision d'enquête parlementaire yoo xam ne tamit nañ ko déposé euh, ci scandale yëpp euh, mooy euh, ci rapport Cour des comptes bi boobu moom munu ñàkk parce que léegi noo gisee rapport boobu non lu ma gisee rapport boobu mooy maanaam dafa confirmer ñun tey opposition lu mu doon wax rek mooy dëkk bi maanaam yàqute bi ak jël alalu réew mi ah loo xam ne alalu budget bi ah daf ko seen moomeel di ko dépenser nu mu leen neexee ah càcc bi. Sénégal yi participer ak détournement bi. donc loolu yëpp nañ doon dénoncer depuis des années. donc mais tey dañu am dañ ci am dañ ci am loo xam ne ay preuve la léegi dafa am ay preuve parce que du doonatul opposants yi wala société civile yi wala ay journalistes indépendants ñu mel ni yéen wala ay Pape Alé Niang rek ñoo koy wax mais léegi dafa nekk ci ay rapport ñu bind ko noir sur blanc Cour des comptes nga xam ne ay magistrats nañu ah ñu féetewoo njaaxanaay donc vraiment ñu gis ne lii euh, leer na nañ te rapport bi dafa doon lu ñu woowee contradictoire mooy maanaam bu ñu bindee ba pare bu ñu defee seen recherche ba pare gëstu ah dañu dem si ñooñu ah ñu nekk ci biir rapport bi ministre yeeg DAGE yeeg euh, agent nga xam ne ñoo impliqué ñu laaj leen ah lii leen nañu gis loo leen ci xalaat ñooñu jox leen seen rapport ñu soo ko dugal ci rapport bi en tout cas soog a jël rapport te rapport bi depuis août 2022 nañ ko jël mais rapport bi euh, demande na ñu euh, ubbi douze information judiciaires mooy ministre de la justice na saisir procureur pour procureur ah mun a ubbi ay informations judiciaires daf ay enquêtes yoo xam ne da koy gën a xóotal pour ñooñu ñu cité ci rapport bi te ñooñu ñu cité am na ay ay ministères yu bari mu mel ni ministère Mansour Faye bi bu mu nekkee développement communautaire ñu jàpp ay surfacturation si wàllum ceeb bi marché ceeb boo xam ne. deux milliards sept cent millions. ah ku mel ni ministre de l' industrie. moom itam Moustapha Diop. 2 euh, milliards cent millions yoo xam ne dépensé nañ ko ñii ci xobet xobet te ñëpp xam nañu état du demee noonu état euh, chèque la wala ay virement lay doxe mais état du da yëkkati ay liquide nii di pasar pasaree xaalisu réew mi ministère de la santé ministère de la santé moom ay milliards yu dul jeex euh, euh, mooy suñu collègue Ablaye Diouf Sarr nga xam ne actuellement mooy premier vice président assemblée nationale ak yeneen ministère ministère de la culture am na ministère euh, de la femme ministère jeunesse yooyu yëpp. commerce ah commerce donc maanaam rapport bi daal lu mu révélé mooy tey cent quatre-vingts pages yoo xam ne maanaam gestion Covid 19. boo nga xam ne jamono jooju sénégalais yaa ngi ci njàkkare sénégalais yaa ngi ci tiit ah ñii perte nañ seen liggéey ñii seen place yi tëj nañ ko ñii ñu ngi ci couvre-feu maanaam 18 heures ku nekk ngi tiit ah nu muy ñibbee et cetera nit ñi nekk ci jafe-jafe kenn mënul tukki frontières yi ñu tëj ko ah loolu yëpp sénégalais yi euh, ba euh, takk seen biir ah ta euh, vraiment ñii jël seen xaalis contribuer ku mel ni xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bassirou jël 200 millions jox leen ko. ak yeneen sénégalais yoo xam ne secteur privé la ñu nekk ay bon volonté waa diaspora ñëpp vraiment ñu ne euh, guerre la ñuy def contre le Covid 19. mais jamono jooju nga xam ne plein pouvoir yëpp ñoo ngi ko jox président Macky Sall ah ak ay ministre mais ñoom euh, amuñu beneen euh, xalaat lu dul jël alalu réew mi lu dul profité ci di si bànneexu tong-tong vraiment loolu daal euh, daf ñoo jaaxal xaw nañoo tiital nag parce que jàpp ñu woon ni ah ñun de ñoo ngi doon dénoncé mais gëmoon nañu quand même. dese woon na voilà voilà ñàkk yërmande boobu amoon nañ ko. vraiment euh, doy na waar. waa mais euh, xam nga tey boo xoolee tamit li nga xam ne tey moom mooy rapport bi li mu wane gis nañ ne société civile bi nee nañu danañu amal rassemblement mais rapport bi gis naa ñu bari dañ si impliqué wu di ci wax ndax beneen bi aussi président na wax na Amadou Ba si conseil des bi jël euh, euh, pour mu jël ay mesures ndax jàpp nga ne loolu xel mën na seedal. waaw bon ñun lu ñu jàpp mooy ne président xam nga rapport boo xam ne le rapport euh, mille août 2022 mais ñun ñoo ngi ci jot si mois de décembre bi nañ ci jot. Hmm. léegi août ba léegi septembre jàll na octobre jàll na novembre jàll na. décembre ah décembre 4 mois dafuñu dara. il faut ñu ba léegi nañu xaar ba cour des comptes publier rapport bi muy soog a naan conseil des ministres coow li ah moom boobu moo ngi woon tukki ah di dem euh, taxawaalu ci bitim réew dem ay xawma naan ay Union africaine G20 alors que sénégalais yi vraiment dëkk bi moo ngi nekk ci situation boo xam ne kenn mënu ko décrire euh, nga ñëw conseil des ministres ngay naan léegi na le premier ministre jël ay motuwaay mais rapport bi rapport bi lu mu wax dafa leer nee na ministre de la justice le le visé xam nga jarul ay jaar sax ci premier ministre yooyu yëpp ay wiri wiri jaari ndaare la man pour man dilatoire la parce que ñu si impliqué tey ah du leen di jéem a protéger parce que soo xoolee Mansour Faye ah Ablaye Diouf Sarr Ablaye Diouf Sarr ah Matar Ba Moustapha Moustapha Diouf euh, euh, ku nekkoon Ndeye euh, Ndeye Sali ah asom ji bëri nañu ñoo xam ne tey am na ñoo xam ne ñoo ci biir gouvernement bi même seen mi Ablaye Diop voilà voilà ñoo ñëpp a ngi ci biir ñoo ñëpp takk nañ si cité nañ leen su te malheureusement Euh, dañ dafa mel ni rapport bi responsabilité d'âge yi. Mhm. la gën a euh, euh, cité. Mhm. que ministres yi te ñëpp xam nañu ne ministres yi ñooy ordinateur yi. waaw d'âge yi ñoom dañuy nekk ay administrateurs de crédit. Mhm. mais pour man président de la république wax nañ ko xam nga déclaration politique générale bu mu ñëwee. bu ñu jëlee parole dañu ne monsieur le ministre Amadou Ba seetlu nañu même si budget bi programme yu ministère du présenté amul fenn fu ñuy naan yan pexe ngeen di euh, teg pour xeex corruption bi te Sénégalais yëpp xam nañ ni àddina bi yëpp xam nañ ni Sénégal corruption am na fi doole. Mmh. te corruption munoo wax budget waxoo corruption parce que su fekkee ne da ngay exécuter budget bi ah 10 pour cent wala 20 pour cent budget bi yëpp jaal si ay corruption mais efficacité bu mu war a am du ko am. d'accord donc euh, waxoon nañ ko ci sa rapport bi sa déclaration politique amul fenn fu ngay naan da xeex corruption amul fenn fu ngay waxee. ah naka laay def ba yokk transparence ah loolu tamit. Ah, nangu ci woon tontu. Ah, mais rapport bi donc gëmuñu ni. Amadou Ba ci boppam ah moom mooy jël ay mesures ah pour xeex guerre moom mooy jël ay mesures. pour xeex laa mal gouvernance parce que ñëpp gis nañ ne tamit moom itam loo xam euh, loxam euh, taxukaa set noonu am na si yu bëri ñoo xam ne ñoo ngi koy cité te ba léegi moom ci boppam déclaration patrimoine dafa gu ko te loi bi da ko ne moom dafa war a déclarer patrimoine am buñ ko dee dee ñu nommé ko rek dafa war a déclarer patrimoine comme président de la république nu ngi koy déclarer premier ministre nu ngi koy déclarer ak yeneen ministres yi moom da ko war a def mais ba léegi defagu ko. d'accord mais donc gis nañ ni vraiment côté boobu moom dañ cee lajj complètement te rapport bi ah, en tout cas ñun au niveau de l'opposition nee nañu procureur ministre de la justice na jël ay responsabilités ubbi information judiciaire si loo xam ne ay infraction pénale na am na leneen lu ñuy woowee ay faute de yooyu nag dañu ne ñoo xam ne dañu leen cité muy ay fonctionnaire dañu war a rembourser nañu fexe ba ñooñu tamit rembourser donc lu Cour de comptes wax ci rapport bi yaakaar naa leer na nañ léegi nag am na loo xam ne am na lu ñu woowee présomption d'innocence ñun ñëpp d'accord nañ ci mais na justice daf liggéeyam parce que tey gis nañ ci ay dossiers yoo xam ne mais yoo xam ne moo gën a euh, vraiment pratiquement moins grave yi mais procureur da ngay gis euh, euh, rapidement lendemain bi mu def communiqué wala mu def conférence de presse mais procureur kenn dégg ko depuis août 2019 ñett ñeenti weer a ngi kenn déggul procureur kenn déggul ministre de la justice mu àddu si. d'accord jërëjëf euh, honorable député euh, waxtu li des bëriwul gis nañ arrestation yi vague d'arrestation yi ci euh, opposition bi ban commentaire. ah non commentaire bu ñu ciy wax mooy ni si wàllum droit de l'homme moom ak wàllum liberté ak ak yeleefu doomu àdduna doomu aadama vraiment côté bilan wu Macky Sall moom dara baaxu ci vraiment loolu moom il faut ñu waxante dëgg Ablaye Wade moo ko gënoon baax bilan. Abdou Diouf moo ko gënoon baax bilan voilà loolu moom il faut que ñëpp d'accord nañ ci euh, lu ko indi nag euh, jàpp naa ni day jéem a xooxal euh, xuuxalaate day jéem a tiitalaate jàpp na ni moom tey am na si opposition bi walla ñoo xam ne ñoo bokk ci activiste yi walla société civile mm-hmm. ah comme moom mosul daf kaso moom yaakaar naa ni dafa yaakaar ni ñëpp kaso rek nañu ragal donc il faut mu jàpp nit ñi tëj leen toroxal leen dugal leen kaso Euh, pour euh, tëj seen gémmin wala tiital leen donc euh, fexe komba boo xam ne personnes yooyu ñu ngi koy mëne combat boobu mu nax nax nasaxal ko. mais mais jàpp nañu lool du démocratie lool du état de droit. d' accord lu jëm ci kaw Ousmane Sonko seen leader élection présidentielle deux mille vingt quatre jàpp nga ne dara mënu ko see tere bokk. non loolu moom jàpp nañ ni vraiment dara mun seetere bokk xanaa yàlla rek waaye euh, incha allah moom euh, ñun samp nañ ko comme candidat. su bokkee te ah. su bokkee ndax dina mën nga jàpp ne dina. ah non day gagné day gagné incha allah lu ñu jàpp ni ah am nañu yaakaar moom wax dëgg yàlla parce que yàllaay fale mais ñun am nañu yaakaar parce que résultat yi ñu jot a gis moom moo doon tête de liste élection législative bi te gis nañ ni intercoalition yeewi wàllu ah lu mu am ci voix bennoo amu ñoo leen raw donc tey opposition bi tey moo jiitu ah euh, benn Bokk Yaakaar ci wàllum voix gis nañ ko bu mu présenté woo mairie Ziguinchor nu mu yombee ci moom gis nañ ko bu mu euh, listam au niveau de euh, Yewwi tamit nu mu ko diriger. donc jàpp nañu actuellement tey soo xoolee ci opposition ak waxuma sax opposition tout candidat confondu opposition majorité c' est le candidat qui a le plus de chance incha allah 2024 mu nekk président de la ah, république. waaw mais gis nañ tamit euh, ay ojo yi Adji Sarr yooyu muy wax ak Baye Mbaye MC mais mel na ne setal na Ousmane Sonko sax. waaw bon xam nga man euh, gis nga dossier bi wax dëgg yàlla euh, malheureusement lu ci lu ma ci gën a metti mooy. Euh, ñu si ñàkk seen bakkan ci événement mars 2021 ak ñoo xam ne récemment 6 euh, juin yeeg ak ñu ay gendarme yeeg ak ñu ñi ñàkk seen liggéey vraiment euh, gëm man lu ma waxoon dès le début ah dama gëmoon ni Ousmane Sonko vraiment il était innocent complètement innocent man loolu laa gëm sama intime conviction su ma doon juge bokk sama intime conviction loolu la leneen ni dama ne lii complot cuune la ku ko xool rek xam ne ah ay fen kese moo ci ne léegi nag am na ñoo xam ne tey dañ ko def business am na ñoo xam ne tamit dañ see jaar am enal xam nga nit nga enal nit. Mhm. nga profité ci dara nga yaakaar ne téye nga ci dara fekk téyewoo ci dara début bi nag bu ñu xamee ni nag téyewuñu ci dara nañu waroon bàyyi mais dañoo insister bëgg a te yaakaar naa ni ñëpp gis nañ ni lii complot la leer na naññ. te vraiment man euh, metti na ma ñu yegg fii tey ci jamono euh, bu ñu nekk nii dëkk bu mel ni Sénégal ñu vraiment ñu suufeel ko vraiment ñu tilimal deru Sénégal euh, ci ay problème yi ñàkk fayda yu mel nii. vraiment doy na waar. jërëjëf honorable député fi la ñuy yëkkatee jotaay bi ñu lay sant di la gërëm. waa jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di en tout cas nuyu sénégalais yëpp ak auditeurs yëpp di nuyu également waa Sédhiou région de Sédhiou département. département de Sédhiou nga xam ne ñoo ma yebal assemblée nationale. Euh, te di leen jox euh, waaw bu baax bu baax a baax te yaakaar naa ne ñëpp kontaan nañ ci aussi bien opposition. que waa Bennoo Bokk Yaakaar sax ñu nekk Sédhiou ñoo ngi may woo di ma félicité ak ah. waa société civile ah incha allah ñu ngi ñaan yàlla may ñu gudd fan ak wér gu yaram ñun ñëpp euh, incha allah Euh, ñu mën a atteindre suñuy objectif jërëjëf. jërëjëf euh, honorable député euh, Ayib Daffé mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi mu yam samedi bu jot 15h jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck moom nag mu bokk ci parti bi di PASTEF jiite commission délégation ci assemblée nationale mu dëkk fi nga xam ne mooy Sédhiou jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw incha allah.